di nuyu kilifa yu tedd yi nga àndal yëpp di Cheikh Mamadou Fadil ak sëñ Baara ak Cheikh Mamadou Fadil ak sëñ Cheikh ak sëriñ Uwaysu ak sëñ Fallu ñoom ñëpp ñu fi teew teewal ànd ak yow ci bis bi comme ni nga ko waxee rek ñu ngi siyaare sëñ Moussa bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak ndax kàddu yi nga seere ci moom rek moom la ñëpp xam ci moom mooy kilifaam bu fi mas a nekk rek topp nañ si ginnaaw laxasaayu doon sa jëwriñ te kenn du ko jiitu ci liggéey ba ba suñ boon def tey mu ne ci kanamu njaboot gi yëpp kon muy kilifa goo xam ne itam ku mat kilifa la ndax kilifa bu melee na war a mel xam la war a xam te kenn déggu ci lenn loo koy xebete wala jënn jëf joo xam ne lu manqué la bokk na ci ñi nga xam ne ndam yoon wi lañ waxtu na dama koy seere fu mu néewut kon dañ koy ñaar bu baax mu yàgg fi te ak rakkam yi topp ci ginnaaw yëpp di teg nuyoo bi ci sa loxo yow mi nga xam ne yàlla def na ba Cheikh Sidi Mokhtar jëlee ndigal li yónni ma ko ci moom ci yow jaar jaaroon ndax wa atul bu yoota min abwaabiha yow lañ def ngay seen buntu waaye ñun ngay suñ bunt ci ñoom bañ accès wax la ko itam nga wane ci yitte ak positif ak taxawaay ak xalaat yu rafet rafet seet na liggéey ba gën a baaxee rek ak na mu gën a rafete nga waxee ko noonu ñu ànd ko dem ba ci moom euh, sëriñ bii di wane ci yitte ak positif ndax ku ne xam na ne biñ ko koy jox ak fi mu toll euh, bu ko jëfewut bu ko defutoon it du tee demee ne def na ko ndax yéenam ndax talu ko woon waaye positifam ak yéenam rek taxawaayam moo tax liggéey bi mën a demee liggéey bi nag tawféex la ju rëy rëy maa ngi la koy seere léegi ndax xam nañ li ngeen ci daj ak coono yeeg taxawaay bi positif bi ak li ngeen ci wane waaye nag du kiimaan ndax ma Massamba day lépp Serigne liñ mën a seere ci moom rakki Serigne bi la di doomam di taalibeem ñett yëpp dafa daje ci moom. Serigne Touba it woon ko lool te la ci jiitu mooy biir kër yëpp moo doon jëwriñu biir kër gi loolu suñu baa santaane ci liggéey ci biir kër gi moo ko daa jiite di ko taxaw ak ci biir kër gi ci boppam fu fu ñu mas a amee jaaxle ci sëñ bi it ci moom lay ñëw mu gindi leen delloo si leen ci lu xóot loo xam ne sax lu ñu mën a wax ci biir rajo waaye diggam ak sëñ bi ni ko suñu Cheikh seeree léegi rek xam nga assaabi kan nu jumi bi ayyihi muqtadaytum muqtadaytum ihtadaytum kon waa kër Serigne Touba di rakkam ak i ak ñim njëkk defar ñëpp noonu la Serigne Touba def ci ñoom koo ci tànn di ko waxtaan rek day mel ni kii mooy sayyidul axyaar yi waaye moom yàlla dafa def muy lépp sëriñ bi bëgg sëriñ bi lool nuru ko it ci jëf ak melokaan ak jikko yàlla def itam ci taarix lañ nett bi daje bi sëriñ bi mujj def ci gaaw ba muy xutbatu am sosin bokk na ci lam barte waaye di joxe na ko jox Seex ma Masamba kon loolu qualité farayam ak yeneen yu bare bari yoo xam ne bu ñu ko doon lim ci jataa bi ci lañ ci xam bu jeex kon diggam ak sëñ bi doy na sëkk ci xaside yi ni ko ci sëñ bi féetale ak liggéey bi mu ci def foofu sëriñ bi masaan di waxtaane it ndax wax sëñ bi ñu ëpp ci mbooloo mi ñenn ñi daa daawuñ ko mën a dégg ñi ci des daawuñ xam li sëñ bi bëgg wax waaye sëñ bi dafa ubbi xolam ak xelam def ci moom xar baax ju rëy joo xam bu sëriñ bi nettalee wax ji ba jeex sëñ ma sàmm mooy dajale waat nit ñi di leen ko leeral ba nit ñi mën koo dégg di ko xam ëpp ci waxtaane sëriñ Tuubaa yi ngay dégg ci moom la jaar kon moom diggam ak bi dafa dafa dafa sori lool yàlla defe nag Eh, bi sëriñ bi ñu bisootu Touba taxawaay boobu la taxaw ci Cheikh Mahamadou Moustapha ak doomi Sëriñ Touba yi taxawaay ci ñoom taxawaay waajur waaye taxawaay ci ñoom taxawaay bi mu taxawee woon ci ñoom nga xam ne adduna sépp xam nañ ko loolu nag mooy dellu soit ba ci doomam bi bu fi bàyyi di sëriñ Modou Baye ak eh, sëriñ Mahmoudan ak sëriñ Saliou ba ci sëriñ bu baax ak ñi nga xam ne sax toogu ci jataay bu mu si Mourou Fatick nga xam ne ñëpp xam nañ positif moom itam kon dañuy sant bu baax a baax rek ndax keroog ba may ñëw ci suñu cheikh dama ko wax ne ko liggéey bii de day mel ne liggéey ba Cheikh Abdoul Ahad defaloon suñu Mouhamadou mu defoon ci taxawaay bu mu ci def ak positif bu mu ci def ba nage boo duggee ci kër suñu Tuubaa fekk fa ba tubaab suñu Mouhamadou kon la ko Cheikh Abdoul Ahad wax na ko mu nekk sa seeri ëllëg waaye fii itam di kër suñu Tuubaa goo xam ne Serigne Saliou moo ko rëddoon Cheikh Abdoul Ahad moo ko naaroon bàyyi ko fi Serigne Saliou miir lu ko tàmbali liggéey bi waxoon ne itam lima ci jublu mooy dama bëgg kër Serigne Touba gi dafa jege jumaa ji nekk ci biiru ormi Serigne bi moo bu kër gi àggee mboolem gan ñi ñi ci ëpp ñu leen dalal fii kon loolu mooy sababu kër gi mu ñoroon ko itteen ko da defaroon yenn plan yi ci gën a bari sax ba ji waaye liggéey bi ku fi ñëw xam ne yitte ak taxawaay ak positif bu rëy rëy defe ngeen ko ni ndax bañ indee plan bi jëbbaleen ko rek lañ ci noppi waaye man mi ko doon indi sax xalaatum moo ne liggéey bi dana demee kon lii moom euh, yëmut rek ci jëf waaye yéen juree du ko lantaay ndax lii moom ci rafetaay mënu ko weesu bëtiwaa mënu ko weesu yaatuwaay noonu amul leen loo boo fa duggee saxee dana xalaat ne ku ci dolli woon nangam loolu nag kon dañuy ñaan rek postef bi ngeen ko jëfee ak yéene ji ak ku ci dugal alalam rek ak ku ci yéene woon a jëf day ceeg payu Serigne Touba day ceeg payu Cheikh Massamba te it dana ci am tam nag di leen jottali kàddu Cheikh Mouhamadou Mountakha mm, ak i cantam ak i ngërëmam keroog ba ma jotee itam keroog gaaw laa ko jotti lépp mu rafetlu ko loolu itam. xamal ma ne itam naa ñëw waxtaan ak yéen ñëw xool ko comme ni nga ko euh, waxe woon waaye lii moom damay jiitu rek waaye àllarba wala alxamis dana ñëwal boppam comme ni ngeen ko bëggee woon bu dikkee euh, dugal boppam ci biir jot leen kàddu yi cantam ak ngërëmam doo door a dellu incha allah loolu sëñ bi nangu na ko bu noppi incha allah àllarba wala alxamis dana ñëw ngeen ci waxtaan nu mu gën a jube ci jube ci yéen rek noonu la waxe bu ko defee dana ñëw boppam bu dikkee xool ko euh, ànd ko sëriñ bi jot leen cant cant ak ngërëm ndax suñ tubaakat bu liggéey bu liggéeyloo mu Massamba cant gi ci loxoom rek la maa kon nag loolu moom mm, xamee na ko noonu te xam ne Cheikh suñ Moussa li mu doon ci moom ay taxawaay bi taxawee ci kon loola dara doyu ko ci lu may yëkkati tànk ñoom ba agsi fii xool ko santal leen boppam ñaanal leen boppam gërëmal leen boppam kon ñu ngi di sant suñu Cheikh bu baax di la ñaanal yow itam ci taxawaay bi ndax nanga nga taxawee ci kër sëñ bi xam nañ ko ak ci njaboot gi ak ci yoon yëpp nag taxawaay bu mat sëkk bu rafet boo xam lu mu doon luy ittee yoon wi di ittee sëriñ bi kenn du la ci jiitu te lu ci bari yàlla teggil na la ko ndax sa responsabilité mayatu la ko xëy na say atit ko waaye kenn doyulu ci loolu nag taxawaayu sa waajur rek lañuy ñuy fàttali moom mi fi nekk tey itam noonu rek la nekk woon ak kilifaam kon nag buñ la doyloo ba jiitalee seen kanam euh, daa fekk nga mate ko kon ñu ngi lay ñaanu ñuy itam bu baax euh, ak saraka yëpp suñ borom dëgëral la kàttanal la may la wér yaram ba nii nga taxawee ci kanamu njaboot gi rek ci seen ginnaaw waajur yàlla yàggal ko lool ba liñ bëgg ci te di la ko jëfloo waxtu ni ngi ci gën am ndam ndax taxawaay bi moom dara yeesu ji waaw ñu ngi sant bu baax di gërëm.